yàlla avant dara yàlla mooy bind di rey fii ku fi dara ci leneen rek déedéet du yàlla yaa ngi bokkaale waaw du politicien ñooy sarax ñun ñi nga yaakaar vraiment parce ah, que dañ ñi moo ko ma la yow nag yow ndaanaan nga <laughs> yow ndaanaan nga euh, xam nga ñun euh, suñ borom moo ñu sàkk waaw bind ñu mu mu def la ab par heure mais mais kaaraange tamit am na parce que jo soso waaw euh, ba may ñëw sama kër jógee ko fii di ñëw la seet si dama benn waay joo xam ne moom buy dox day jël tànk yi di ko windeel. waaw. waaw ma naa ko ba jib ko ne chauffeur bi taxawal ma taxaw yundu ko mu xool ma ma ne ko dama la bëgg a yóbbaale foo jëm mu ne ma fii rek laa jëm kaay bi yóbbaale naaj bi tàng na ba may ñëw fii naaj la. Euh, mu ne ma nii laay doxee min naa ma jaamu ci yàlla ma ma jógee foofu bay dugg biir Cambérène gis koo xam ne benn tànkal doxee di di tëb non franchement ma jooy na ci oto mu ne maa ngi nekk sama huit huit boo xam ne. Mhm. defaluma yàlla dara lu tax ma dugal ma ci wit huit climatisé te ñii roow ma leen ci yàlla te yàlla teg leen coono gim ma tegul ma jaamu ci yàlla ma ragal ci yàlla ma santal yàlla wallaahi ndeysaan kon nag sosoo nit pour siggi da ngay sëgg addina mhm. ku ne heure ba nga jot boo war a jot sa dund da koy jot wërsëg ba nga da nga koy jot bés ba nga war dee da dee bu kenn dugal kenn ci dara ci lenn fii lu fi am yàlla dëgg la